élections yi euh, dina am li nga xam nekk le 24 mars fii si li nga xam Sénégal euh, donc japp leen itam si gox yu ko gëna fassantiko nak euh, élection élections yi dina ko daldi amal en plein mois de Ramadan loolu yëpp dinañ ko daldi franc faram alors mais tout d'abord et justement, euh, euh, euh cher Omar, euh, suñu dernière sortie bi nga daal ñëw exactement si li nga xam nekk le conseil constitutionnel par rapport aujourd'hui ak li nga xam nekk euh, attaque bi nga xamni ni te ko dal di war def allant dans sens est-ce que tay lu mu def tay lo nga don xaar si concrètement li nga xamni tam itam ñëw na déchirer le protocole bi nga xamni tam mo dal di jugoon fa nga xam ni itam mooy ko jëm ñaajo amal élection li nga xam nekk le 2 juin Macky peut ronger son mandat le 2 juin exactement

de garantir le respect de la Constitution, hmm. de l'équilibre des pouvoirs et de leur dévolution démocratique. C'est-à-dire, Conseil constitutionnel, rôle mooy mu garantir respect constitution la hmm. waaye tamit garantir équilibre. Hmm. Ah, des des des des pouvoirs waaye aussi pouvoir bi. bu transmettre une dévolution démocratique. une dévolution démocratique mais mu élection donc déjà le Léon le conseil constitutionnel en matière électorale daf ci am li nga xamni moy sañ-sañ bu mu am. Hmm. ma togon fi ak yow ci waxtaan. Hmm. ma li indi won wax ji moy bi président jëlé ab dogal. Hmm. annuler li nga xamni moy le décret bi mu pour convoquer le collège électoral pour le 25 février. donc nous jàpp dans le clan électoral le 25 février moy li nga xamni moy élection bu sénégalais wara wara wara président daal di jël ab décret dàq ko kon déjà loolu moo indi woon problème mu mbiicoo mbaacoo hmm. président jëlee dogal boobu gannaaw bi assemblée nationale jël ab loi député am nañ droit parce que loolu mooy seen rôle ñoom dañuy jël loi ñu jël loi fixé date élection le 15 décembre. Hmm. mooy ginnaaw président dàqee date bi. Hmm. conseil constitutionnel bi mu ñëwee dafa dàq dogal bi nga xam ni moom président jël président askan mi moko fal am souveraineté conseil conseil am sañ-sañu ne jël acte assemblée nationale ñi fa nek ay député lañ askan mi mo len fal ñu loi yobbu date bi le 15 conseil constitutionnel d'accord. ko est-ce que vous topé logique ñi ci dialogue j'ai beaucoup de respect pour tout le monde mais pour moi, je fi plutôt nous avons ni que nañ ak Senghor à ak Ablaye Wade reerandoo ak Abdou Diouf et cetera c'est des mm. gens euh, véritablement mais les gens au théâtre nous woon fait doon def quoi parce que le dialogue là mënul sommes au-dessus du décret présidentiel par exemple mm. nous avons ëpp légitimité ak mm. légalité les conclusions du dialogue ne peuvent pas aussi être au-dessus d'une loi qui a été votée par les députés donc faites le conseil constitutionnel dàq na décret. dàq loi wu assemblée nationale naturellement liy jóge ci dialogue bi date bi ñu hmm. euh, le 2 daf koy dàq. ban hmm. faut la sukkandiku woon. beneen hmm. bi bu ñu fekkee dañu sukkandiku ci constitution au Sénégal. dafa am ay sañ-sañ yu nga xam ni la jox conseil constitutionnel. ba demee si article 88 daf lay wax le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Donc hmm. déjà, le hmm. Conseil constitutionnel a indépendance vis-à-vis des deux autres pouvoirs. Si nous parlons de la Constitution du Sénégal, article 92 les hmm. décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles de faire l'objet de recours ça on hmm. l'avait dit hmm. et c'est pourquoi quand le conseil constitutionnel a sorti une liste de candidats de 20 mu ñëwaat def définitive mu def 19 parce que amna kenko kenn démissionné et conformément à la loi électorale et à la constitution bu amee candidat boo xam Donc, na dañuy une liste donc conseil constitutionnel logique c'est mu nekkoon ci la même Moi, bougé donc man ma loolee ma am ensuite ci biir waxtaan bi conseil constitutionnel jëlee dogal boobu dindi décret président dindi loi dafa invité président comme moom moo am sañ-sañu jàpp jël décret pour jàpp bis mun na ko na jàpp bis waaye jàpp bis bi dafa am champ d'application ci benn app maanaam avant la fin du mandat la ko war a def avant la fin du mandat c'est le 2 avril donc ça veut dire élection mënul am lu dul le 2 avril donc conseil constitutionnel loolu la joxone dans l'esprit hmm. lolou la jox tamit dans la lettre le président. après nak président woote na dialogue waxtaan nañ jàpp nañ jour. né hmm. le 2 juin. Hmm. argument yi bari amna ñi né koor la ñi né Pentecôte wax nañ. dox yu bëri jox 88 jours avant le scrutin oui mais c' est à dire tey c' exceptionnel à une situation exceptionnelle et inédite il va faire naturellement dafa am ay chamboulement. ci li nga xamni moy durée de campagne bi ak et cetera parce que man dama japp ni président biñ ñu ko njëkkee jox bataxal conseil constitutionnel. Bimune prend acte. Hmm. il a fait parler le chargé de communication euh, du palais. Euh, hmm. de la présidence Yarodia. donc ce qu'on a na volonté ci jour boobu da doon jël li nga xam ni ab décret rek lay bis yi jours. Hmm. mu dolli ko ci comme ça tout rentrerait dans l'ordre mais là dañu dem ci une crise institutionnelle installée installée, parce que le pouvoir législatif a légiféré la le conseil constitutionnel a rejeté le président qui incarne le pouvoir exécutif a décrété, le Conseil constitutionnel à rejeter, a montré que le Conseil constitutionnel jouit hein, de toute sa plénitude hmm. euh, bien c'est issu de la loi maintenant hmm. le yëpp nag su hmm. euh, décret. kan on am sañ un décret président Macky Sall décret. donc sur le plan juridique les li nga xamante ni ci responsabilité maintenant l'analyse sur le plan juridique maintenant.

date euh, par la suite l'apprendre apprendre que conseil constitutionnel jël na li que mori date justement euh, le le le 31 mars te ñoom dañoo conclure déjà li nga le 24 mars euh, deux dates mu avons déjà alors le conseil constitutionnel ci benn lettre bi nga peut-être pas public euh, lettre privée notifié que président Macky Sall le 5 que ni jëlal date parce que au-delà du 2 ce mandat jeex na alors mais ñaari dates yooyu ba mu génnee mu daal di jur benn confusion si li nga que moo di askan wi est-ce que loolu tamit du déduire li nga que justement le chamboulement bi nga xam ko exécutif bi ak li nga xam ne judiciaire Oui, mais chamboulement am c'est-à-dire derniers mm. l'instant mm. que le président a pris un décret que le conseil constitutionnel a jugé que ce décret viole la constitution parce que dans, ses prérogatives et son rôle et sa responsabilité, mm. le conseil constitutionnel euh, veille au respect de la constitution. Donc euh, si on prend un décret que nous jugeons que, que le décret euh, ne respecte pas la constitution, donc la constitutionnalité, ou loo lois daf koy automatiquement day indi li nga xam ni moo dëppoo ak li nga xam ni mooy la constitution. Hmm. Euh, constitution au Sénégal moom moo am sañ-sañ jox président pour mu jël décret pour convoquer le collège électoral. collège électoral mooy électeurs yi ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a élire. Hmm. bu ko président jëloon na ko la vingt cinq. Hmm. président moo ñëwaat dàqaat ko. ñu jëlaat beneen date kañ. le vingt cinq ñu jël le quinze. nous jóge fa ñoom ñu tànnaat beneen date. Hmm. le 2 juin. balaa nous jël le 2 juin conseil constitutionnel avons na leen terme bi. ci njëkk hmm. rek joxoon na ko ko. Hmm. pour mu mun jël date mais jëlul woon date wa donc conseil constitutionnel pouvoir bi au delà de l'aspect juridique dafa am des pouvoirs yu ko permettre. en cas de carence. cest à dire su les pouvoirs publics nous jëluñu seen nous ba une date nous avons une prérogative pour jël date. Non bu fekkoon concerté <laughs> woon nañ euh, peut-être loolu la am donc conseil concerné jël na date Le conseil constitutionnel jëlee date dafay constater le 31 mars la jël date maintenant si par la suite le conseil concerné remarque que le président a pris une date ba datu président bi la ñuy considérer parce que nous avons ñuy jël dañoo jàpp ni président jëlul date au cas où fekkoon jëlul date par exemple le 31 mooy am mais dès l'instant qu'il a pris une date mm, mm. le 24 euh, su fekkoon su fekkoon jëlul date donc aujourd'hui même Macky Sall su bëggee tànn sax le 2 juin les élections le 31 lay exactement exactement. ce rôle de substitution là conséquentiel, il y a le alors. am commentaire élections hmm. euh, euh, problème